اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما إجاب دارين في التعاوس من النارين وهو المرتب على أروف قولي تعالى كلما أوخدوا نارا للحرب أدفأها الله كل المعامد لمن يحسمنا مزليا على الذي أمره كل المعامد لمن يصمنا مزليا على الذي أمره لا جميع خلق والأمر بلا تنازع ولا خلاف مسجلا له سماوات والأرض وما بينهما سبحانه ما سما منه بجاه المصطفى مغربي أروم خيرا عمل ومرغب إله كن بالمصطفى الآبي مدابينني وانسعى بأصبر علينا يعبد وبداك نفس دركا واستنصير وفيخ جميعنا لما تهيب واغفر لنا سنوبنا يا رب خذنا إلى عصمتي والنجاة عن كل مكر وبلاء لياتي دم جميع من أرى نظرنا قبل وصولهم إلينا وقنا وكيلنا في سفر الودر أنت وأنت قوسنا من دار أنت الذي أوليتنا ما يرغب فضلا فكفنا بهما يرغب نجي بفضلك أبي نغنياف ولطف بهم وكفهم كل مقاف اضرب قلوب المشركين كلهم لخيرنا ونجنا من غيرهم رجاونا نصرك لا يا الكريم إليك لا إلى سواك نرغب وفي هداك لا سواك نرغب لسنا أنسنا بك من نار الأب والنار أرب فكفنا كل نصاب لسنا bi di nga ne seen yaa wakiil fa kun lana inna fina daxil mudna ani sarare wa siraarihi fi aasini daari wa tilka daari rajaatu raxmataka yaa raxi أخي ما أميت من الأميت فضلا بسيد الأنام أدفعت نارا كيد من مولاه يحسي بلا آه لا إله إلا الله طلبت منك نكون بدالك وأن تكن لي رغدا فيك في المختار خيمتي واليا واسما نغمتي أنت مراد أبدا وجنتي عن كل سوء من أسل ومنتي حبلي واي وتخيم سدي في درتين بالمصطفى محمد أدم علينا يا كريم يا زاهرة بدنة نكرما أنت الإله وعيد القاره المانع العزيز والجبار لك خلائق مال والأمر ومنك يأتني منار فنذر لئن لنا كل مريد مريد وسخرا لي كل باق وانصت وعلى ماهي وعلي البدور وسبحي صلي وسلم بنور بسم الإله جبرك بسيق فات المين buur yàlla dollinu ay maqaama yàlla qalbuka wala saddaati maay bëgga way te yi ji ma way fi sangub góor ñépp yàlla kooka di seex fallu kooka mag mooray biir moo gën ñi njëkk ña gën ñi ñëpp yàllaaw ku ni mu musu fee am mu ku dootu am te dootu am fii ci duniya wër na yàllaaw tey ji ma joy se xona ana soppey Sëriñ Fall ji ma joy Seexuna Sëriñ Fallu mbëru ma ni bees mboolem lu nekk ci duniya joy ni Yàlla murid yi xaadir yi atijaani ñëpp nga jooy ak suuf si ak asamaaw sing ndox mi yàlla ak jënd beeg weer wi ak biddi lépp nga jooy ak doñi ak njanaw yeek njay alli yàlla aw malaayika jinne ak yeneen yi lépp nga jooy sabay ak xudub yaak walli yàlla aw wiital nu ruy ci duniya yépp kulluma ru yépp jooy ko cey siix walli yàlla aw julli di anguur gi jullit yi ak nguur gi ak àdduna ñépp nga nunu ñépp jooy nanu ko ngir baaxam nga yàlla aaw mboolem lu nekk ci duniya lépp lépp ma ko lu nu xam lu nu xamul mboolem lépp yàlla aaw ma dil la ñag moo ma dil a ñang moo la way way wi di sakku ngaram ci yàlla ak ci sëriñ Tuuba ba yàlla ana ji mag lu maam mbooloo mi noonu ñaar ku sëpp Fallu nga yëkkat sa ñaari loxo ca kaw ñu màggal sëñ Fallu jar ko loxo ca kaw am naa ji mam ma xamaa Cheikh Fall may na ma Cheikh Fall may na may na ma ay bur na Yàlla moo tax ma xam ak sëñ sëñ yamal la ko ak doole jaag maya أخر بقي الله إما جوي فالله مسيلا نيانا دام زاب سرين زاب قارد كي ما سن في الله كسب بسين فالو ويدي تبي جنة كنون سرين فالو ويدي ناري الله ku sopp sëñ Fallu Mboy de tabbi jannata ku noonu baayu benn boy dinaari yàlla aw alhamdulillahi yow yaaram bi kenn bañu la bur yàlla seede ne lii sëriñ saaliw kenn bañu la na ma déglu te sellal xol yi kuy wuta xam lu ne ci man na ko xam يا ربي كل بنيرا سبحان ربك رب العزة عما يدفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Mm. والحمد لله رب العالمين ayaa soo daanu jóguleen Muusa mu tagg fi Muusa ma ñu tudd ma dégg jana waay ngiroo ñi soj ji taalif te seen baay sax ferul baasin fa yaasin subo un xudusun xeree soona gumbay xeleli sax di palamti yaasin sa kaw doo ذنب أسيم لا إله إلا الله بالخدير خفور رغيم ذكوت أمور حسن بن عزيز حسن بن عزيم لرب الخدير خدير خفور رغيم سكوت أمور ذنب أسير رب القدير غفور رحيم magal leen Sëriñ Tuuba ku ko def danga gudd fan alliira a hoorin hoorin nay sa kaw da أحسن بن أسير لا إله إلا الله رب الخلدي غفور رئيس غفور رئيس كوتو حسن بن أسيم لراب الخد حليل أهور أهور الرئيس كود أمار حسن بن أسيم لرب الخدير خفور الرئيس كود أمار أحسن بن أسيم لرب اللي أور فكل مزكيا وحبل الملا لا إله إلا الله بجاي نبي في الكريم نبي الكريم سكوت أمور وسن بالأسيم وسن بالمدين لا بالخد اللي أور وصلي عليه بخير جاء لا إله إلا الله وسلم صلى من عليه يدعو عليه يدعو وصلي عليه بخير الدعاء بخير الدعاء صلى صلى من عليه يدعو عليه يدعو وصلي عليه بخير الدعاء لا اله الا الله وسلم صلى من عليه يدعو عليه يدعو وصلي عليه بخير الدعاء الانتهاء بخير الانتهاء سلم سلاما عليه يدو وكل وليا هنا واخرا لا اله الا الله وكل نصيرا فاني يا رسول الله وكل وليا هنا هنا وخدا هنا وخدا وكل نصيرا فاني فإني مريض وكن بي لطيفا وهب لي رضا لا إله إلا الله وكن لي غفارا فإني مريض يا رسول الله لطيفا وغاب وهب لي رضا وهب لي رضا وكن لي غفارا فإني فإني مريض وكن لي مطلبه لا إله إلا الله وكل مقديرا لي فإني نبي يا رسول الله وكل معينا معينا على مطلبه على مطلبه وكل مقديرا لي فإني فإني سعي وكل معينا على من لبيك لا إله إلا الله وكل مقديرا لي فإني سعيد يا رسول الله وكل معينا على من لبيك على من لبيك وكل مقديرا لي فإني فإني سعي وقبلي سلام وقبلي تقال لا إله إلا الله ونور جناني وسدني نقول يا رسول الله وقبلي سلام سلام وقبلي تقال وحبلي تقال ونور جناني وسدني نقول وسدني نقول وقبلي نجاة وسدني ولا لا إله إلا الله وأدلي أمور re asidinin ya rasulallah wa abli wa salaan wa abli wa habli tuqan wa nawir jannani asidinin ulo asidinin ulo wa akhrij وسلني خلال لا إله إلا الله وأبري سقامي وفرج خمار نبي يا رسول الله فأغرم ويوبي ويوبي وسني خلال وسني خلال وأبري سقامي وفرج وفرج خمار ولا تغصياني خني مالكا خني مالكا ولا تبدي عني بكون الله ولا تؤتي أهلي إني مالك إني مالك ولا تؤتي أهلي بكون الله بكون الله فإني لئيم أسير أوى أسير أوى واصل ولكن إلى محمد فإني لئيم مجل سريفا للو سريفا لو باخ وآسل ولكن إلى إله الغلي وحبية العبد هنا وغدا هنا وغدا maa ngi ñaan ku ñu màgg Serigne Fallou Mbacke yaa nga tàggoo Bakar ngi ñaan ku ñu màgg Serigne Fallou Mbacke yaa nga ba si wicc jug leen ñu màgg wutal yadtaqi wa hafiyatan hab una wa qadan xadat lana wali man le yaramata fademon ge wa abiyatan abuna una man له هدى يتقي هدى يتقي وصلي صلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلم سلاما عليه يا رمضان وسلم صلاة على المصطفى على المصطفى وسلم سلاما عليه يدوم عليه يدوم بسنو مام ديدم جي تباب يانكونا تباب يانكونا ni dem Ndakaaru pexe may sutee moom nu ko sun maam di dee jéeg tubaab yaa ngi ko naan. tubaab yaa ngi ko naan. lii dem Dakar Dakaroo fexe may sotee. ñun sunu sëriñ ba sunu maam di dem géej tubaab yaa ngi ko naan. tubaab yaa ngi ko naan. mu nii dem Dakaroo fexe may sotee. ba demoon géej ba sunu maam di dem géej tubaab yaa ngi ko naan. tubaab yaa ngi ko naan. mu nii dem Dakar Dakaroo fexe may sotee. sunu sëriñ Dakar dem Ndakaaru ñu jël benn gaal ñu jël benn gaal yaram ngaa nga baan ka jaarama daam ba demoon géej ka dem Ndakaaru ñu jël benn gaal ñu jël benn gaal yaram yaa nga baan ka joor ak bawal ka joor ak bawal ka joor ak bawal si saalum ak fuuta ak joor ak jaay diggante aras ak diwaan lay lëmbee diwaan lay lëmbee Kajoor ak Bawal Bawal Siin Saalum ak Fuuta ak Jolof Njaay diggante Aras ak diwaan lay lëmbee ñun sunu sëriñ diggante Aras ak diwaan lay lëmbee yaraama naa ma demoon diggante Aras ak wallaylembe wallaylembe musul leem géej masin bankona masin bankona mu duubam bayaa yaay dem yarama daam ma demoon géej ba zulmaam di dee dem géej konaan masin bankona moo du bamba yaay dem te yaay dellu see ñun sunu sëriñ murid jaay leen yaay sëñ fallu jaay naa ci baayu meen alaaji fallullaahi allah moo ni rabb alaaji fallullaahi murid jaay noo ngi ñaan ku jug taxaw màggal sëñ fallu yàlla nga fekke weer wi déwén ku jug taxaw màggal sëñ Fallu yàlla nga am téeméeri barke borom Touba ram mu rijjaayile sëñ Fallu jar na alaaji fallullahi allah ngoonee alaaji fallullahi ku ko yàlla mën loo lambal addee sëriñ Fallu ñu jox ko alaaji Modou Galas ku ko jox addee Serigne Fallou yàlla nga fekke weer wi déwén alaaji Fallou laay murija ille Serigne Fallou jar na alaaji Fallou laay alak moo ni alaaji Fallou laay murija ille jaay naa ji baay ben alaaji Fallou laay alak moo ni alaaji Fallou laay murija ille Serigne Fallou jar na amen alaaji fallullahi allah moo nuy rabb alaaji fallullahi rijaayul leeyee jaay naa iba amen alaaji fallullahi allah moo nuy rabb alaaji fallullahi alaaji fallullahi allah moo nuy rabb alaaji fallullahi alaaji fallullahi allah moo nuy rabb alaaji fallullahi alaaji fallullahi allah moo nuy rabb fallu laay alaaji fallu laay magalin bay sëriñ Cheikh mee baax alaaji fallullaay alag moo nuy rama alaaji fallullaay alaaji fallullaay alag moo nuy rama alaaji fallullaay alaaji fallullaay alag moo nuy rama alaaji fallullaay alaaji fallullaay alag moo nuy rama alaaji fallullaay alaaji fallullaay alag moo nuy rama alaaji fallullaay alaaji fallullaay alag moo nuy rama alaaji fallullaay laay alaaji fallu laay alag moo ni alaaji fallu laay alaaji fallu laay mag leen sëriñ fallilu alaaji fallu laay alaaji fallu laay alag moo ni alaaji fallu laay alaaji fallu laay alag moo ni alaaji fallu laay alaaji fallu laay alag moo ni alaaji fallu laay alaaji fallu laay alag moo ni alaaji fallu laay alaaji fallullaay ëllëg moo nuy ram alaaji say buuli laay dawaaj daay rooti diinde mar nañu naa de mar na ñëw naan du yaale xande Dai rotini ay root ndiinde mar na ñëw naar du yaale xande man moo taxa ma jimati jaay ka sanci waaw ka sanci niinde sin falu maam daam saay gëndu fende bay bee ci dindi sëñ ci dindi sëñ Fallu maam daaw say gën du bende ay booli lay daaw day root dinde day root dinde war na ñëw naa de waaw waaw kumar na ñëw na kumar na ñëw na du yàlla xaande cofeel gi ma am ci moom dootu ko man waa na kala sambaay ba wutana lay banneexo balu awa buso tumbe dama tiña sayo waxe maam góor du ko leen ma sëriñ Fallilu yow lay banneexo galas ci ndine salas jëndinde mbooloo mi jug leen taxaw ca kaw màgg Sëriñ Cheikh Oumy Mbacké Falilou ku jóg màgg Sëriñ Cheikh Oumy Mbacké Falilou yàlla nga dellusi waat déwén jóg leen màgg Sëriñ Fallou Mbacké jëndinde sama waaja saayo waxi maam buy gudd ko dindi gudd ko dindi yow laay bànneexoo kalas jëndinde maam mi bàyyi laan mun na yow laay bànneexoo galas ca ninde sama waaja saayoo waxi maam buy gudd ko waaw gudd ko dindi yow laay bànneexoo walla bu sa du beddaama ti ñam saayoo waxi maam gudd falliye yoo lay baneexoo galas ca dinde sama waaja gaañi jama biiroo kenn du ko jënde kenn du ko jënde baram baa taxa sëñ Fallu yaay jama gaañi jama biiroo kenn du ko jënde sama waaja amul moro waaw baram xaari sëñ Fallou yaay jama gañi jama biiru kenn du ko jënde waay kenn du ko jënde waaw jaaro borom baata sëñ Fallou yaay biiru kenn du ko jënde sama mooy jama waaw jaaro borom baata xaari finde kenn ko jënd ay jaaro borom si fallu yaay jama gaañi jama biiro kenn ko jënd ay jaaro borom baata kenn du ko jënd ay kenn du ko jënd waaw waaw jaaro borom baata si fallu yaay jama gaañi jama biro kenn du ko jënd ana soppi Serigne Fallu waaw waaw jaaro borom baata rifinde Serigne Fallu moo sëriñ bu mag bi sëriñ bu mag bi magal ku mage wujile si Fallu woote mu jëkk woote sëriñ bu mag bi sëriñ bu mag bi magal ku mage de yoonu géej sama waaja moo jëkk woote sëriñ bu mag bi sëriñ bu mag bi magal ku mage wujile nu gën woote naa wooteel sëriñ bu mag sëriñ bu mag bi magal ku mag deyo nu géej géej ni ko yàlla def ku mu neexul yaay ki reere yaay ki reere yaare kumu neexul yaay kireere kumu neexul yaare tey ma way ma way Seex Fallul ma ne naa la way ba dee Fallu nga dee lu yàlla laa bëgg naa Seex laa bari ay may bari ay dab bari sañ sañ bari sañ mu sa wax sa borom def

képp ku la dem aljanna ay baara fallilo li boole waaw waaw yombul fallullaay fallullaay doomi bamba bamba xaritu bu yàlla wallaay ay baara fallilo li nga boole boole daa yombul fallullaay waykat yi waaw kala neexo kala neexo man ma way la ndaxte yaa ma neex Seex Fallu la baayu Murtala juma waykat yi ku kala neexo kala neexo man ma way la yaa ma neex Seex Fallu waaw waaw ku na waye kala neexo kala neexo yaa ma neex Seex Fallu laay ana soppey Sëriñ Fallu neex a way yaa neex a taa Seex Fallu laay say way mana neex ana sa bi jëriñ fallu neex way ya neex ta se fallu sey way man a ana soppey tëriñ fallu ak a neexoo waaw ñépp maa sa nangu dogal bee ni man sax ci jila way kon ñu xam sa nangu dogal man sax ci ñu xam ni yaay fallu laay ana soppey sëriñ fallu agal ne xo ñépp ma ta nangu ni man sax ci di la way ñu xam ni yaay fallu laay baay muru dala juma agal ne xo ñépp ma daayiman sax ci di la way di la way kon ñu xam yaay fallu la yanu moom nu moom sabaay ba nu moom sangana jëndi waay sabaay ku sopp Serigne Fallou defal sa loxo sa ko dara jug leen ñu màggal Sëriñ Fallu jug leen ñu màggal Sëriñ Fallu ku sopp Sëriñ Fallu defal ni sa loxo sa ngana ya jara doy la baay ben ya nu moom ngir sa baay ba nu moom sa baay ba nu moom sa ngana jëni waay sa ba dara baay ben ya nu moom ngir sa baay ba nu moom ay masaji sa xiñ gi waaw waaw bakkat sayxi bamba bu wér waaw waaw sa waaja ba yum cheikh abul baraka ma sa ji saaxin gi magalin sëriñ abo bamba bu wér ba baraka way kii ma may bayir xam ngeen moo du mbaay mu galas kum tollu muy baak baa yub seex abul baraka way ki ma may bayre dëgg la xam ngeen moo du mbaa mu galas mu galas tollu muy baax ku baax yim Seex abul sayaba ahlan ahlan wa sahlan wa sahlan ilaay doore di man ji la wax waaw waaw di bàkk mbër doomi mbër mooy Seex abul abul baraka ahlan ahlan wa sahlan ci laay doore di man ji la wax ji la wax di bàkk mbër doomi mbër mooy Seex abul sëñ Abo yaa fi Serigne Fallou yaay jëriñu tool bi la tey sabay bi sell na jaajëm Cheikh Abou Abal Baraka yaa fi sëriñ fal magi sëriñ basiru yaa jëriñu tool bi magi sëriñ cheikh umbe sabay bi sell na jaajëf cheikh abool bari waay sa yaari mag yi nga toppoon sa yaari mag mag yi nga toppoon sa yaari mag mag yi nga toppoon sa yaari mag mag yi nga toppoon sa yaari mag mag yi nga toppoon am nga siin jërëjëf jërëjëf ami ju cheikh fallu sukuran seex abu abul baraka sa yaari yi nga toppoon am nga seen jërëjëf jërëjëf ami ju seex fallu sukuran Seex Abool ay waay ma Mustafa Fall sama may ma Mustafa Fall sama may ma Mustafa Fall sama may ma Mustafa Fall sama may ma Mustafa Fall sama may ma Mustafa Fall sama may ma Mustafa Fall sama may ma Mustafa Fall sama may ma Mustafa Fall sama may ma Mustafa Fall sama ma Musa fa far sama mbër mu kenn yëful ci yoonu Seex Bamba jaajëf Seex Abul Baraka ma Musa fa far sama bër mu kéyal nu yebul nu yebul ci yoonu Seex Bamba jaajëf Seex Abool Baraka yaa doon Seex Fallu Seex Fallu cig ma doon ngor ga bu lu wér la giñ naa ko yaay moom Seex Abool Baraka yaa doon Seex Fallu waaw ci mag doon nu ngor ga bu wer lu wer la giñ naa ko yaay moom seex abool baay yaa doon lu seex fallu seex fallu ci doon nu ngor ga bu wer lu wér la giñ naa ko yaay moom Cheikh Abul Baraka yaa doon nu Cheikh Fallu waaw ci ma doon nu ngor ga bu wér ga bu wér lu wér la giñ naa ko yaay moom Cheikh Abul Baraka yaa doon nu Cheikh Fallu ci ma doon nu ngor ga bu wér lu wér la giñ naa ko yaay moom Cheikh Abul Baraka yaa doon nu Cheikh Fallu waaw ci ma doon lu wér la giñ naa ko yaay moom Seex Abo ol Baraka yaa doon nu Seex Fallu lu wér ma doon nu góor ga bu lu wér la giñ naa ko moom Seex Abo